lañ bëggoon def pour voir suñu situation waaw ñun ay Nous collectif la boo des agents ay agents de santé Nous si ñun avons médecins des techniciens de santé des euh, infirmiers des euh, sages-femmes ministère de la santé et de l'action sociale moom moo ñu recruter ci nous projet bu sur wax ISMEA de investir si euh, wérgu yaramu yaay doomi euh, ak xalé yu xalé xale yu xaw mag yi léegi depuis ba ñu recruter ñu jël suñu service depuis 4 mois booba léegi jotaguñ suñu salaire te am na suñu collègue yoo xamante ne ñoom ñu ngi jot seen salaire donc loolu mu doon loo xamante ne benn injustice la ak benn discrimination moo taxoon tey ñu organiser presse bi euh, organiser woon point de presse bi parce que jotoon nañ ci waxtaan suñu DRH bi suñu directrice euh, des ressources humaines mois bële passé ci ndaje boobu ay mouvement syndicaux sax ñëwoon nañ ba ñu waxtaan ci problème bi mu ne dina ko régler mais depuis boobu ba léegi gis nañ ne problème bi réglé wul léegi nag ñu ngi woo suñu njiitu réew mi monsieur Macky Sall di woo ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu ñëw régler problème bi sinon suñu yeneen collègues yi nga xamante ne ñu ngi leen di fay te ñu ngi toll ci à peu près huit cent ñoom dinañ ñëw jàppale ñu si combat bi te boobaa système sanitaire bi dina sooxe bu baax. bon xaw ma nombre bi exact mais bëri neen parce que projet bi daanaka huit cent am na huit cent agents. te si si 800 yooyu 46 lañ fayagul. waaw wax naa ko léegi suñu collègue yi nga xamante ñu ngi leen di fay ñoom pare neen pour jàppale ñu waaw.